mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu madame la ko defee soxna Safi Seen ñoo ngi lay nuyu yàgg délégation bi nga àndal yëpp ñu ràññi ci ñi nekk département Kébémer nga ànd ak ñoom ñëw fekk si waa arrondissement Darou Mouhty ci ànd ak sous-préfet Mamadou Ly ak chef de service yi ànd yëpp commandant brigade rek ñi ci nekk ñëpp ñu lay nuyu ci turu sëriñ bi Cheikh Sidi Makhtar Mbacké xalif ci sëriñ Moustapha bi nga xam ni mooy kër gi te sëriñ bi ko teg ko ci suñu kanam nga xam ni lépp lu ñuy def ci kër gi moom moo koy jiite sëñ bi tànn ko ngir jikkoom ju rafet ak melokaanam nga xam ne jikkoy sëriñ rek la yor kon maa ngi lay nuyu ci turam ak i rakkam yépp yi mu àndal sëriñ baara mu seet sëñ abdulahad mi ngi nii ni ko alaji jaaja waxee sëriñ Saliou Mbacké mu Cheikh Sidi Makhtar Mbacké sëriñ Moustapha Mbacké mu sëriñ Abibou sëriñ Abdou Ahad Bousso ñëw teewal fi sëriñ Assis Khadim Awa Ba ak ñi nga xam ni naka jekk lépp lu ñuy def ci kër Cheikh Mouhamadul Amin ba ñooy ànd ak ñoom di ko def te mooy waa kër Cheikh Mouhamadul Moustapha mooy fédération sëriñ Cheikh Cheikh Mouhamadul Moustapha bi nga xam ni bu yàggul rek ñëw nañu fii fekk sëriñ bi fii ci Mbàkke Kajoor sëriñ bi yabal leen jaare ko ci sëñ Abdourahman ñoom Ibra Kane ak sëñ Basiru Ñaan ak sëriñ Luum ñu ñëw teew fi ànd ak ñun liggéey bi naka noonu daayira Matlabul Fawzayni ñoom sëñ Moustapha Sylla ak sëñ Mor Tàmbe ak sëñ Ibra Kare ñu nekk Italie ak Espagne ak Sénégal ñooy ñëw teew fi ànd ñun ci liggéey bi am na daayira Hizbut yi itam ñoom nga xam ni dañoo takk seen laxasaay ci liggéey sëriñ duñ ko mës a tekki baat nay tukki waxuma màgg gi waaye leneen lu mën it itam ñoom ñu ngi ci e, commune de Touba itam yebal nañu fi secretaire général bi Pape Sarr e, sëñ Mbacke Kebe yebal fi Samba Xaya sëñ Cheikh Thioro mu sëñ Amar Fall yebal fi Serigne Jiri mu sëñ Amar Fall sëñ Cheikh Jëmb itam xam naa délégation mi ngi ci yoon wi ñëw dañoo accès gul ñu ñëw nag fekk fii Pam Ndiaye bi nga xam ne mooy maire commune de Mbacké Kadior Alaji Jaaja ak ñi fi nekk ñëpp bokk ci commune bi ñëw Moustapha Ndong ak conseiller ak Ibrahima Ndiaye ñoom ak yéen waa presse bi yëpp kon madame le préfet ñu ngi lay nuyu di leen dalal jàmm tey ñoo ngi ci CDD màggalu Mbacké Kadior ni ñu ko baaxoo def at mu nekk mooy dañuy xamle lan mooy sabab màggal gi xamle itam tuuti ci mbàkke kajoor ndax mbàkke kajoor mu mën a antasali moo ko sancoon ci atum 1880 ginnaaw bu mu bàyyi ko ñooro ànd ak Lat Joor ci Maba Ba ñëwee ñi ngi mi ngi jëkka dal jóge paata booba mab Lat mi xam na euh, kër Amadou Yàlla mu ñëw sanc ko am fi ñetti génn àddina sëriñ bi wóotu ko ci daara ji ba sayyiduna Muhammad ali sallallahu alayhi wa ko fi wax ko li mu ko wax wax nañ ko ay yoon ci ginnaaw bi 1912 jàpp 13 la fi yebal Cheikh Mouhamadul Amin Bara mu ñëw sanc si bi fekk si mbokk mu baax ma sëriñ Amar Fall nga xam ni njabootam ak nii sëñ Cheikh Kajoor di imaam yi Mbàkke Kajoor mu nekk fi di jaamu suñu borom ba 1936 mu génne àddina ñu yóbbu ko Touba dëkk la boo xam ne itam fi la yoonu mu di juddoo lépp fi la sosoo kon loolu mooy Mbàkke Kajoor ci gàttal Cheikh Mouhamadou ñuy màggal itam jaayantoon ak sëñ fii ci ba sëriñ bi ñibbi Tuubaa ànd ak ñoom sanc yim sanc yëpp bi Seex Mouhamadou leen bara génn ganee àddina daf leen ni li ngeen seen borom yëpp gan gi ñëw indil na leen ko bésu mbégte boobu di bésu xéewal moom la Seex Sidi Maxtaar di fàttaliku loolu mooy màggalu Mbàkke Kajoor kon ma madame le préfet ñoo ngi am mbégte ci dalal leen ñu waxtaane tomb yi nga xam ni jàpp nañ suñ ko waxtaanee waxtaawoon nañ ko ak préfet ci semaine ba le ba tënk ko suñ ko naa ni dañu am li ñu bëgg ci kon maa ngi leen jébal kàddu gi su ko defee rek bu ñu bi di nuyoo sëriñ bi di ko ziyaar di yóbbante nuyoo bi sëriñ Moustapha moom mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi mu tegal ñu ko ci loxo njaboot gi yépp ñu nuyu itam di ziyaar sëriñ Cheikh Thioro sëriñ Cheikh Kajoor sëriñ Baralaat ak ñi fi nekk ñépp di nuyu meeru Mbàkke Kajoor ak meer yi fi nekk. ak au conseil des collectivité territoriales ñi nga xam ne teew na fi ñëpp ñi fi teew daal chef de service yi ñëpp ñu leen di nuyu. ndax dañ fi daje tey ci bërëb bu sell bii ni Mbàkke Kajoor sëriñ bi fàttali na ko ci ay waxam muy bërëb boo xam ne wax na ko ci wàllu cosaan ci wàllu aada ci wàllu diine en tout cas lu bëri mën nañ ko fi jàngee tey ñu daje woon fi suñu borom. dogal ñu teew fi tey ci turu préfet département Kébémer Madior Ka nga xam ne ngànt moo ko fi tere ñëw ngir ñu waxtaane waajtaayu màggal Mbàkke Kajoor 2017 muy Jumaadal Ula ni ko sëriñ bi waxee en perspective CRD bi nga xam ne gouverneur war na ko def semaine prochaine ñu àndoon ak chef de service yi nga xam ne ñu ngi au niveau département au niveau région ak ba tey ñi nekk Darou Mousty ànd ak monsieur le sous-préfet de Darou Mousty Mamadou Ly ñu doon def waxtaan boobu point yi nga xam ne sëriñ bi namoon nañu waxtaanee ko yépp waxtaanee nañ ko service bu nekk li ñuy xaar si yow itam waxtaane nañ ko ñun ñëpp déggandoo nañu engagement yi nga xam ne jël nañ ko fi buñ fi jógee itam incha allah suñuy kilifa lépp luñ fi tënk gi nañ leen ko jottali itam fas ne topp liggéey bi ba keroog ñuy àgg ci màggal ba pour que suñu borom may ñu ci ñaanu itam sëriñ bi ñu comme ak yi passé yëpp mu may ñu ñu mën a organiser màggal bu macc mucc ayib une bonne organisation màggal nga xam ne muy côté sécurité sëriñ bi insisté na ci muy sécurité muy côté gendarmerie sécurité ba tey alimentaire muy élevage muy waa service d'hygiène muy commerce en tout cas secteur yëpp ku nekk na nga waxoon nga mën ko mën a wàccee incha allah. ñu gis ñi du poste de santé la. waaw ci création bi du poste de santé sax centre de santé la dañu la état bi créé Mbacké Kajoor. peut-être am na quelques jafe-jafe yu fi am ñun ñëpp dégg nañu ko incha allah nuñ ko waxee gi nañu ko jébbal kilifa yi wax leen jafe-jafe yi nga xam ne am na ko fi. Euh, paanu rajo bi wax ngeen ko mais heureusement docteur bi wax na ne dafa am pièce bu fi paanoon te loolu bitim réew la ñu ko waroon wutee te ña entreprise ba ko yor wut na ko ñëw installé ko moom moo das donc wax naa ko jafe-jafe yi gi nañ ko jébbal kilifa yi. te ñu ñëpp nangu nañ ne président de la république son excellence Macky Sall wër gi yaram daf ko accordel solo trop ndax balaa ngaa wax développement ak sëñ bi foog naa sax balaa ñoo jaamu yàlla dañuy wër moo tax président wër gu yaram mu accordel ko solo tax mu mettre en place li ñuy wax semi couverture maladie universelle mu dugal ko bu baax ci PSE kon foog naa ne jafe-jafe yi incha allah ci li mu gën a néew ak ñaanu sëñ bi ak barke dëkk bi Euh, dinañu ko mën a saafara ci ne mu gën a gaawee. alhamdulilah taala wa barakaatu. madame la préfet ñi ngi lay nuyu yaa délégation bi nga àndal soxna Seydou Sène sous-préfet Mamadou Ly commandant brigade Fall Darou Mouhty ak chef de service yi nga xam ni yëpp lim nañu leen fi ñu lay nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Moustapha mii nga xam ni mooy taabu kër gi di suñu mag sëriñ bi jiital ko ci lépp lu ñuy liggéey lu jëm ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ndax ay jikkoom yu rafet ak oyofaayam damay wax saa su nekk ni jikkoy sëriñ bi rek la yor te lépp lu sëriñ bi joxañ mu téye ko kon maa ngi leen di nuyu ci turam te mooy nuyoo Cheikh Sidi Mokhtar ak bi yabal ñun ñëpp ñu ànd waa kër njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak ñi nga xam ni ñoom la séqal màggal góor gu ñaaw ji di suñu maam di sëriñ Cheikh Kajoor nga xam ni mooy imaamu Mbàkke Kajoor waajuróom mu sell wa moo dalaloon Cheikh Mouhamadou Lamine Bara fii sëñ Amar Fall mu ngi nii ñëw teewal fii sëriñ Mbàkke Kajoor sëriñ Moustapha bi nga xam ni mooy xarit sëriñ Mbàkke Kajoor sëriñ Bara Abdou Lahad sëriñ Khalid Moustahine sëriñ Sidi Mbacke Abdoul Aziz sëriñ Yendali Mbacke Abdoul Aziz sëriñ Khadim Mbacke Abdoul Karim sëñ Sidi Amar Fall Mbacke sëñ Modou Bara Abdoul Khadim sëriñ Saliou Mbacke Cheikh Sidi Makhtar sëriñ Jili Mbacke Amar Fall sëriñ Mourtala Abdoul Khadim sëriñ Abdoul Ahad Bousso ñëw teewal fi Serigne Abdou Aziz Xadim Awa Serigne Ahmadou Fall Nayle conseil territorial naka noonu sëñ Sidi Abdou Aziz nekk premier adjoint au maire ànd ak Pape Sarr teew fi ak commune Touba bi yëpp Serigne di kenn ci jëwriñi Serigne bi. and nañ fii ak ak tey madame le préfet fédération Cheikh Mouhamadou Bara Saadul Abrar bi nga xam ne sëriñ Abdou Aziz Lo moo ko jiite ak bi nekk Ndakaaru nga xam ne Alhaji Fall moo ko jiite fédération Cheikh Mouhamadou Moustapha bi nga xam ni sëriñ Abdourahmane Mbacke Gaynde Fatma moo leen fi yabal sëñ Ibra Kane Basirou Ñaan ak sëriñ Lo daayira Hizbut Tarqiyyah sëriñ yuusu ñëw na ànd ak mbooloo teewal fi sëñ Atou Diagne niñ daan ànd liggéey bu at mu nekk daayira mën dëbul foofu sëy ni itam sëñ Omar Sénébaloo yebal fi sëñ Moustapha Silla sëñ Ibra Kare ak sëñ Modou sëñ Mor Ba sëñ Mor Tambédou bi nga xam ne mooy fédération bi nekk Touba Espagne bu Cheikh Khadim ñi fi teewal Serigne Cheikh Jëmm xalif Cheikh Adama Mouride Baye Fall itam ñoom it ñëw nañ fi gis nañ fi Serigne Modou Bara xalifu Serigne Abdou Khadim xam naa dafa am lu xawoon tuuti rek waaye agsi na ci jàmm da waaw donc suñu soi chef de village yi nga xam ni ñoo nekk ci commune Mbacke Kadior ñoom ñëpp teew nañ fi eh, am na ñoo xam ne ay jàmbaar lañ jàppale ci liggéey ku mel ni Ousmane Diouf bi wax léegi Moussa Diop Ibra Sall sëñ Abdou Latif Mbàkkeem sëñ Cheikh Sidi Maxtaar alxaaji Njool Seck sëriñ Maam Thierno bi nga xam ni mooy maire commune de Darou Marnane ñëw fi teew fi en tant que maire waaye ñëw teewal fi alxaaji Maam Thierno nga xam ni moom sëriñ bi ñooy bokk di saytu màggal gi së sëñ Modou Bara mu sëriñ Modou Aïssa moom it teew na fi sëriñ Modou Aïcha sëñ Amar Fall teew na fi sëriñ Abdou Karim di suñu doom di suñu jarbaat mu suñu Xaadim Modou Bara teew na fi ñu ñëw fekk si fi suñu maire de la commune Pape Ndiaye ak ñi fi nekk ñëw ku ma tudd itam nga jéggal ma te xam ni ku lim mën ngaa fàtte waaye yéen ñëpp ñi ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte bu baax ci seen taxawaay ci màggal gi tàmbalee ko ci sous-préfet ba ci yéen préfet soxna Sowi jàll ba ci gouverneur ndax saa su màggal gi jubsee nii lañuy ñuy ànde waxtaan xool point yi nga xam ne suñ ko waxtaanee jëfe ko màggal gi dina baax ngeen jotali ko ci gouverneur jotali ko ci kilifa yi ministre de l'Intérieur premier ministre ba ci président Macky waaye ñuy sant bu baax ci turu sëriñ bi di ko yóbbante kilifa yi rawatina président Macky Sall ndax magal bi weesu daaw lépp lu ñu fi daan def dañ ko yokk boo leen gisee muy lépp lu ñu fi def dafa yokk bi magal gi jubsee ñu bind ko lettre mu tontu ñu xamal ñu ni joxe na ndigal premier ministre lépp lu ñu war a def ci magal gi incha allahu dina ko def bi magal gi jubsee accès mu jël premier ministre Mohamed ibnu Abdoulaye Ndione yabal ko fi mu ànd ak lu toll ci juróom-ñaari ministre ñëw yendu fi jotali ay terangaam ak cantam ci sëriñ bi kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal eh, sëriñ bi itam di sant njabootu boppam gi muy njabootu Cheikh Mawlin Baara mu njabootu Cheikh Moustapha muy képp koo xam ni yaa ngi dugal sa loxo ci màggal gi ni ñu ko waxee léegi sëriñ bi dafa ñu tànn rek teg ñu ci kanam waaye ñun lu néew lañ ci def waaye lii ngeen gis ñoo ànd ñu ci liggéey bi ba lépp lu ci mat rafet ci ñoom ñoo ko def kon sëñ Moussa leen di sant bu baax di leen gërëm dëkk bii nag madame la préfet moo di fudul Touba Mbacke Kajoor moo la mag ndax ci atum 1880 la Momar Anta Sali bàyyi ko Nioro ci Maba Diakhou ànd ak Lat Eh, lim àndewoon ak Lat Joor itam Lat sàkk woon ci Maba Jaxu ku koy jàngal lislaamu ak di ko àtteel bi mu ñëwee kër amatu Yàlla moom Momar Anta Sali mi ngi nekkoon dëkk bi ñuy wax Pataar waaye mu jigéen eh, pencu mbuur bi mu wax ni ab sëriñ ak buur mu ñëw bokk am penc sàkku ci moom ñu wutal ko beneen suuf ci lañ ko indee fii ci Mbàkke Kajoor mu sanc fi 1880 doon fi jàngale mu nekk dara joo xam ni ñu bëree bëri jaar nañ fi ci suñ bokk sax tijaan yi ku mel ni maam Abdou sise maam Sëñ Moustapha sise pir maam Abdou sise Jaamal maam Iliman saabo ñoom ñëpp ak ñeneen jaar nañ fii doon fi jàng ba fi la wàcc liggéey ñu yóbbu ko fii ci Derklé Cheikhul Khadim dese daara ji fii la ko seyiduna mohammedina Ali isalatu wasalaam jëkk feeñoo itam ndax fii la waxoon ne chafahani rasulullah salallahu taala alayhi wa sallam bi xawlihi rabbi ashaabaka bi himmatin wala talab mi dar si faqat mu ne yonente bi ali salaa salaam feeñu na ma tey wax ni ngir mam awoon ak sahaba yi naa ci aw yéen kon fii la jëkk gis sayidina mawlana alayhi salatu wasalaam ab taawo itam soxna fatja fii la ganee àddina yoonu mu nit fii la juddoo ki jëkk jébbalu ci fii la jébbaloo ci moom muy sëñ aadama gay mi ngi ci armée yi fii ci Mbacke Kajoor maam Cheikh Ibrahima Fall fii la ko fekkoon maam Mor Anta Sali ki mujj gis ci ay doomam waxuma caatam de ki mujj gis ci ay doomam muy sëñ ab Absa fii la gënee àddina waaye sëñ ma sàmm mooy ab caatam sëñ Tuubaa gisu mbaa bu yàggu ju ci jamono Cheikh di Maxtaar mi nga xam ne mooy xalifa sànq mu itam fii la gënee jamono ci Mbacke Kajoor Cheikh Mouhamad Lamine Bara 1913 ku tedd ki indi ko fii mu fii liggéey si di fi jaamu yàlla fekk si ni ma ko waxee mbokkam mu baax mi maam Amar Fall Mbakke mu am këram juróom-ñaari weer ba defar këram soog fee toxu ba mu fay génn daf ni amoo fi dara lu ma naqari li ma fi nekk yëpp te sëñ Touba ba mi koy indi sëñ Amar dañu ko maa lay boole koo xam ne ku naqaree nekkal la sëñ Amar ni ko man de man na maa nekk ak moom ndax du ma xëccoog moom dara lu mu bëgg ma bàyyee ko ko mooy waajuru sama maam ju ñaaw ji sëñ Cheikh Kadiou imam ànd bu rafet boobu moo nekk nii ba tey kon soxna si loolu mooy Mbàkke Kajoor foofu lañuy wootee màggal bi nga xam ni daara la dëkku aada la dëkku cosaan la waaye dëkk bu ñu barkeeloo la Cheikh Moulay Bara fi la nekk di liggéey 1913 ba 36 mu wàcce fi liggéey ñu yóbbu ko Touba e, ñi nga xam ne nag ñoo jaayantewoon ak sëriñ bi bi ko yonente bi li isra wasalaam feeñoo tolloo ci ñeent fukki góor sëriñ bi bàyyi ko Mbàkke Kajoor dem ñibbi Mbàkke Bawal ba sanc Daaru Salaam sanc sanc yim sanc yëpp ba yàlla jox ko Cheikh Mamadou Moustapha jox ko Cheikh Mamadou Fadal bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gane àddina 1891 dafa woo ñooñu ñëpp bi ñuy ñëw ni leen li ngeen di sàkku seen borom lépp gan gi ñëw indi na leen ko mën nga ne yeewee ko bis boobu nga xam ne bisu taw feex la di bisu faj aajo di bisu ngëneel bis boobu la si di Makhtar ànd ak njaboot di ko fàttaliku mooy màggalu jumaada ula di màggalu Mbàkke Kajoor incha allah li nga xam ne ñun mënaluñ ko suñu bopp sëriñ bi woote ko état man ko ngir ñëw ànd koog ñun ba lépp di rafet ñi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di wax rek sécurité ñu gën a farlu ni ko sëñ bi waxe saa su nekk ndax day bëgg ku jóg di màggal si ñëw ci jàmm nekk fi ci jàmm delluwaat ci jàmm ak salaam moo tax ñu bëgg bépp oto boo xam da nga surcharge ñu wàcce la ñi ci kaw bépp képp koo xam ne yor deux routes deux roues li ñuy wax jakarta duñ ko maye mu ñëw ci màggalu Mbàkke Kajoor ak yeneen ak yeneen yëpp yu bëri su ko defee yeneen yi nga xam ne wàllu sécurité alimentaire alimentaire la itam ñi ko yor saytu ñu was waa service d'hygiène waa élevage service commerce ñoom ñëpp ñu taxaw ci waaye madame la le préfet ñu ngi lay sant di sant suñu préfet bi Mamadou Ly di sant bu baax di leen gërëm di yóbbante ay cant ak ngërëm di sàkku ci yéen itam bu soobee ni altine bi ñu ñëw su fekkee mën nañ def CRD incha allah ñu def ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant nag maire Mbacke Kajoor ci taxawaayam muy Pape Ndiaye ndax fu ñu toll dañuy wootante ak moom di waxtaan ak moom te saa soo ko nee jógal mu jóg ñu ngi sant it commune Darou Marnane ndax benn lañ ñun ñaar di sant commune Touba ndax taxawaay bi ñu taxaw bépp magal bu aw biir Touba sëñ Abdou Lahad Ka loolu lay taxawee ci magal Mbacke Kajoor kon sëñ Sidi yaa Pape Sarr ñu ci commune bi. di beral cant nag koo xam ne kenn la ci ñun muy alaaji jaajal ndax alaaji jaajal dañoo xàmme rek fekk mu ànd ak suñu waajur di dem ba tële waaye nanguwut a tële bàyyiwul liggéey bi ànd ak ñun nam la ànd suñu waajur kon ñu ngi koy sant sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant la presse ni ñu ko waxee woon ci njàlbeen ndax ñoom saa su magal gi jubsee dañuy ànd ak ñoom di tàmbalee ci CRD bi ba ci CRD bi ba ci màggal gi ba ci conclusion bi ba ci débat yi nga xam ni yëpp dañu koy def lu jëm ci màggal gi ak dundu Cheikh Mouhamadou Bara kon ñi leen sant di leen gërëm di sant rawatina service service public bi ak privé bi wax dëgg yàlla lu ñu soxla ci ñoom ñu defal na ko sans condition kon ñu ngi sant baax di gërëm di ñaan Moussa loolu euh, wax nañ ko ci biir CRD bi ci biir waxtaan bi incha allahu wax nañ ministre de la santé doomu sëriñ bi la xaritam la taalibeem la lépp loo xam ni yëg na ko te man ko saafara balaa muy àgg ci président dina ko saafara su demee ba tëdd bu ko waxee président ko saafara loolu amul umpale ni ci kàttanu yàlla bala ñoo toogaat fii déwén dana fekk loolu soxla ci centre de santé bi mu dépendre ci euh, réseau médical bu ko dina ko def oto bi nga xam ne moom lañu bëgg itam ak li ci am ci ay paan paan bu soobee yàlla danañ ci taxaw ak docteur Diouf dañuy sàkku ci yéen rek muy docteur Diouf muy monsieur le maire Pape Ndiaye lépp loo xam da ngeen ko amati ci ay jafe-jafe ñu koy yëgaale ñun itam ñu ma leen ci poussé jaay ñu leen ci su ko defee dana gën a yombal liggéey bi wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin